salaamaaleykum mbokk yeeg xarit ma amaan mbégte ak bànne àndaat ak yow sa émission Carrefour des Stars tey ma am fi invité boo xamante ne bi kenn dootu ko présenté ci milieu mannequinat moo ngi nii jàkkaarloog man yéen ma ko gën a xam euh, du ma def lu dul bàyyi ko sama invité tey mu nuyoo ma daal di dugg moom ci waxtaan bi elle euh, se nomme tout simplement Adja Oumou Seck ajaa dama lay bàyyi nga nuyoo ak askan wi ma daal dugg yow ci waxtaan bi. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Adja Oumou Seck ok nekk mannequin je suis mannequin Adja. Mhm. Euh, milieu naa dafa garaaw. Mhm. parce que tey nit ku nekk man nii animateur laa. am na lu mu ci dugal. Mhm. Euh, menuisier bi am na lu ko dugal ci menuisier. mécanicien bi noonu yow nga nekk mannequin. bi ngay nekk xale xamoo woon ne man ki naa ngay def. nga dem ba benn moment nga choisir nekk mannequin. lan moo waral tey nga bàyyi fi métier yëpp dugg ci mannequinat bi. ok question boobu mu ko posé dama si dama si kontaan waaw. mannequinat comme li nga ko waxee rek musul woon nekk sama bopp mais dama musoon bëgg affaire de coquette solo xam nga génn ay affaire am ay fringues tout saa tu vois loolu nag moo dem ba nekk ci man nekk passion ci man ah, au fur et à mesure ma ci ma ci ma may may may solo daal di nekk ak gars yi des fois ma xool lii ne lii moo génn kon xaaral ma soog ma ne ko pourquoi pas parce que gis toujours fii Sénégal. Mhm. Euh, Il y a des gens qui ont nga tout ça pourquoi pas man ne pas, tamit ah. mhm. pourquoi pas C'est ce que je sama sama sama dugg ah, mais ok nga effectivement voilà tu bon ni sommes là? un jour concours boo xam une entreprise entreprise glace moo doon def ay plage Ok. comprends di def ay BCEAO di fa tourner défilé plage yi ah plage mhm. publique yëpp. Mhm. benn su ma dem si tombé si ma ak sama benn copine ñu man wax Maguette Thiam ñoo àndoon. ma tombé si boo jëndee glace bi affaire yooyu da ngay yéeg défilé tout ça. Mhm. man ma ma daal di jënduma sax dama taxaw tubaab bi ci boppam dama yow kaay boobu. dëgg jël naa poids ga mais temps yooyu fekkoon na xam nga ma gënoon kii affaire yooyu. ñëw tubaab bi ma kaay ma ne ko pour ma yéeg défilé ne ko man mun ma ne rus. mënumaa def la te xaw ma sax nu ñuy doxee. Mhm. sama copine ne ma demal non non amul problème tubaab bi tamit insisté insisté ah lu bëri ma daal di je me rappelle très bien maa ngi yéeg nii si podium bi mu ngi nekk ay bant kon yu podium yooyu. Mhm. concert yi maa ngi si yéex dox aller retour tu vois. tubaab bi ne ma ndax man mannequin la tu es mannequin ma ne ko non je suis pas mannequin Ben espagnol la tu es mannequin ma ne ko non je suis pas mannequin tu fais quoi alors ma je suis élève.

ñu devons ma qualifié waat ba desul woon lu malheureusement final bi ñoo ngi ko 6 defee CICES mu tombé sama papa décédé Lolo tax nag après nous devons continuer loolu moo indi nag sama défilé ci milieu manekina ma ne xaaral comme te lii moom ma comme te dem naa ba fii xaaral après au fur et à mesure tamit may dem di défilé ak benn télé bu nekk sur place aussi ñu devons def seen défilé tuddee ko ren ren d'été mhm. may défilé sur plage yi dem ba demi-finale aussi foofu tamit ma coupé parce que dafa am beneen tournée bu ma waroon def. loolu mooy indi sama défilé. loolu mooy indi sa défilé. Mhm. bi ngay dugg ci défilé est que xamoon nga ni boo ci duggee di nga ci réussir. non man nag côté boobu non parce que man dama jàppoon ne dama siy dugg nii ah. da nga si doon dugg nii rek pour le plaisir. c'est plaisir voilà. dugg défilé wàcc génn tout ça wutuma si tour. Mhm. wutuma si buzz. wutuma si lenn. wutuma si woon xaalis tamit. passion la. wutuma si woon xaalis. macha allah wutuma si woon xaalis. passion la dama ko bëgg dama bëggoon dama bëgg bëggoon def affaire ci ci sol talon dox affaire jaay xam nga affaire de bandi. xëcc des fois def lu neex xam nga affaire yooyu daal. man noonu laa ko jàppee woon franchement. damay dégg mannequin yi koo ci laaj mu ne la jaar naa fi jaar naa fi jaar ba tuddul ma agence. ma bëggoon xam ndax jaar nga si agence. jaar naa si agence ñaari agence. Karim Dieye ci moom laa njëkk jàngee dox formé ay pause ak lépp après ma dem Boomerang si yu ak Ela Diagne. ok foofu laa génnee def naa fa deux ans ak ñoom. def nga fa deux ans. mais a foofu nu muy demee da ngay fay di jàng wala ñoom dañ lay jël. non jàngal la boo pare ñu wala expliquer ñu foofu na lay demee. non non tu sais hmm, foofu naa sa war a tontu. Mhm. parce que ñoom Ela ak ak yu dañu tëjoon agence bi. man ak sama yeneen copine comme Mamita Jaraay Mami Fall. ñu ñoo dem wax ak ñoom ne leen Ela pourquoi pas doo leen ubbi agence Ela ne ma ah da ngeen pare ma ne ko ñun pare nañu pare ngeen ma ne ko pare nañu mun ne ok mun naa la wax ne ñun tey ñun tey mën naa ne ñu ñëw ubbi agence encore Boomerang yu ak Ela Diagne noonu lañ def mais amuñu ñoom amul boo ñëwee di nga inscription di nga ko def pour jàppale jeunes yi ah mhm. fayeeku wuñu si au contraire au contraire ñoom ñooy dem des fois ñu ñu jox leen benn place

tàmm la après da nga koy habitué wu. damay gis sa jigéen buy dox nii may xaw a critique ma ne ma waaye man ma si agence. nga kii nu muy doxee. waaw hmm? billaay dama ko tàmm xaw ma lu tax. mais man dama gis man man kay ma gis yëpp dañoo dangaaral picc picc pàcc pàcc mais yow moom da ñëw rek sedd lu tax lool. <laughs> non yow da ngaa dal de xaw nu mu demee noonu. damaa yaru parce que man kay bu yaru am na. am na kay yéen dëng de. non du c'est que nak no ñaaw comme ni nga waxe waxee soo rek fayda nek mhm. mais ku ñuy togn mom jot ñu mom li gi leni di chaque jour la tax koy suñu devise la loolu. kon mannequin ne non la wara mel. <laughs> ah du non la mel mais bo amul caractère ñu yop la. Mhm. rek mais du. caractère d'accord non mais fii Sénégal lu yëngu rek ñu ne mannequin bi mannequin yi mannequin bi. yàlla def loolu si ñun nag. Mhm. mais léegi lan moo tax loolu. mooy li ma la wax yàllaa def loolu si ñun. du ñoo weex donc kon ñun jubu leen benn bu ñun en bien sûr jub nañu de. <laughs> Mhm. jub nañu mais dangay seet lu xew boo yaa gis tey mannequin boo xam ne comme mu pare défilé dem boîte de nuit am na nu muy demee sax kenn tooñ provoqué fa coow am. Mhm. ñu nekk tel et tel mannequin li wak lii wak li wak li man gis na assistance yu bari yu mel noonu soo défilé pare doo dem do dem fële do dem boîte de nuit. man temps en temps je le dis haut et fort. man lay neex ma gé te daf may sonal sax parce que parce que gëj naa ko def aussi. parce que say bagage say dal sa nombre de dal ça dépend 2 3 dal mu ngi sa sac sa yere sa yere yi nga soloon tout ça. bala lol di am je préfère ñeu sama kër changé wu génn. léegi lan moo la ñu yóbbu lan moo la ñu yóbbu boîte de nuit da ngay dem pour tok pour wala da ngeen fay am rendez-vous. wala da ngeen dem non question de rencard wala lenn c'est juste que c'est juste juste que ne question de dem décompresser wu génne stress bu ne ci yow. parce que défilé bul comprendre comme genre boo waree def. kon boo waree def euh, xam nga nan laa la ko benn benn spectacle benn casting da ngay stressé wu. tant que mhm. woo ko doo ne alx da ngay ne da ngay da ngay da tiit. Mhm. moo tax boo paree man noonu laa ko jàppee da ngay dem défulé wu nekk boîte de nuit waxtaan des fois nga tase fekk say mhm. ngeen nekk waxtaan ka fooree man noonu laa ko jëlee ah mais du leen mais léegi pourquoi bu ñu nee tux rek ñu ne man kay <laughs> man kay yi tux <laughs> man kay yi tux ñëw ci naan bi. man kay yi tux la. boppam laa bëgg nga wax ma tey bu ñu nee tux rek ñu ne mannequin yi. jigéen juy tux ñu ne mannequin la. mais nag kan wax la milieu mannequinat dafa doon loo xam ne dafa dafa dafa dafa garaaw. Mhm. parce que yaay gis tey koo xam ne bëgg na libre wala bëgg na am yenn kii rek ne mannequin la gis nga genre yooyu ñooy ñëw dugg si biir euh, yàqal ñu bëri daal. ñooñu parce que bu ñu ñëwee passe temps la ñuy def de dem mais ñi ciy liggéey ñu ngi siy joow ba léegi mais ñooñu ngay gis tout le temps. ñoo ngi ci ñoom ñooy ñëw yàq ko salteel ko dem seen yoon yaa ngi dégg ñi ciy tox nag moom mën naa jàpp ne tam peut-être complexe la am na ñoo xam duñ ko tàmm man du ma leen jugé. yow doo tox yow. man non. mosoo tox mosoo téye cigarette mais dégg naa ñu naan mën kee dëgg foog mu tox mu nekk mën kee. man dégg naa bu nekk ay foog mu def bi foog mu def bi foog mu def bi non du loolu yëf yi fit la. Hmm. man je défile naturellement. ah mhm. kon war nga maa invité fooy défilé nag. loolu dara kañ ngay défilé waat. ça dépend kas yi ñuy passé dew ma woon parce que dafa ci yu ma nekkoon.

léegi mannequin égal caga. <laughs> ca yàlla. <laughs> Ah, loolu yu gars yi di wax de. ne leen daal fii ku fi jógee ak séeréer boo ñëwee mannequin ngay nekkal boîte wala nga nekk ñoom ba euh, hôtel. la ci mm. loolu. am na. am na. am na mais nag sans dépend am na ñoo xam ne seen copain nekkuñu fi comme par exemple man. Mm-hmm. je le dis mm-hmm. sama copain newu fii. fu mu ne. mu ngi extérieur. ok extérieur. quelque part dans le monde voilà non waaw quelque part dans le monde. <laughs> Uh-huh. comprendre nga. Euh, kooku bu ñëwee fii lay toog loolu fii nga toog nii. Mm-hmm. comprendre nga bu ñëwee fii bu ma waree génn fii lay ñëw. ngeen ànd génn. Mm-hmm. soit buy jógee këram ma ne ko daa ko ñu tel milieu ñu dem milieu muy resto wala muy boîte wala muy benn café. benn copain nga am yow. benn copain laa am bëgg naa xam bëgg na ma. leerul le wala leerul le wala fi mu toll nii naan benn copain laa am léegi nag ñi fi nekk ñëpp yaakaar na ñoom bis nekk naan man la ndekk te ñoo xam na boppam ah xam na boppam rek nga ñëwoon woon de léegi nag quatre yi nag wala cinq yëpp ku si nekk naan ah man la benn laa am ñoo xam nañ dama sérieuse benn laa am waay ah kon baax na yaa ko wax de maa ko wax léegi ba tey ci mannequinat mooy que tey euh, dañoo tollu jamono joo xamante tey xale yi. Mhm. ku jóg ne man mannequin ku jóg ne mannequin laa bëgg doon ku jóg ne mannequin laa bëgg doon donc yéen ñi nga xamante ne yéen si yàgg yàgg ngeen si. Mhm. daj ngeen si lu ne xam ngeen li si ne. Mhm. xale yi ñëw tey boo leen doon am loo leen wax lan lay doon. bon xale yi tey man mi damay jaaxal sax damay dem casting damay tiit damay naan lii ndax xew la wala nu mu demee noonu. tellement que dañuy bari sérieusement tey su ma doon xew xewle man du ma invité waa koñ bi de. ñoom laa invité. <laughs> mën nañ ko feesal de. feesal nañ ko ah yaay gis koo xam ne 1 mètre lay doon ñoo na la man kenn la. waaw ah oui. monta jël jël talon def montage am ba mu neex du mat sax 1 mètre 113. man kenn dëgg taayam ñaata la war a ne. cent de 1 mètre 75 la commencé. mais yow da ngaa njool de yow ñaar ban kii nga am. man 1 mètre 90 la. daa ilaaha illallah. te salu ko ay talon. 1 mètre 90 la. <laughs> ya ini de waruna waaw waaw voilà 1 mètre 90 ata man kay da ngay ñëw taxaw gis leen ñoom ñëpp xam nga nekk si casting lu nekk ñu di koy eh. def man des fois damay taxaw ay ree daf ma jàpp même si défilé yi tout ça moo tax su ma leen gisee ci yéen kii damay naan benn instant dama leen yërëm ah. tax nga yërëm leen. parce que am na ñoo xam am chance si milieu bi. ok du question dara nag. man nii laa mel dama direct tax nga wax loolu ñan la ñan ñan ñoo dul am chance ci milieu bi. non mais ñoom ñu ngan ñan ngan ñi wala. man je suis man dama ko soo. waaw yow da nga réyoon léegi da nga wàññeeku. man bi ma lay xam tolloo woon ni. <laughs> dégg nga xoolal am na ñoo xam ne man gis naa ñoo xam ne comme des suñu agence ñu ñu ak Ela dañ doon def ba Miss bombe atomique ma gis naa ñoo xam ne dag la gis bul comprendre damay xoolee yëngal sama bopp. da ngay gis yoo xam dañuy yor taay bi sax duñu xam ñu koy exploité. ok. lu ñuy bëgg riir mannequin génn dem boîte taxawaalu tubaab for tubaab noonu lañ koy awantee des fois dama dañu xool sax damay ree. mais pourquoi ko tubaab bi bu ñëwee rek mannequin la ñuy choisir ñoom. pourquoi man parce que yéen a dàq naaw daal. dégg ñu naan ñun ñoo dàq naaw fexeel bañ dàq naaw du loolu. du loolu c'est que tubaab yi tamit benn benn instant boo seetee. ñoom toujours koo xam ne dafa maintenir kooram koo xam ne parce que bëggul ñu ñu ñu ñu tubaab bëggul ñoo xam ne mooy loolu par chance nga si tombé sa gis ñoo xam ne bëgg nañu mooy loolu ñoom li ñuy bëgg toujours koo xam ne am na forme am na taay bi am na lii am na mhm. tubaab moom mooy loolu. Mhm. comprendre nga li ma la wax. comprendre voilà mais man daal. yow mës nga <laughs> man kay bi amul faru tubaab bëriwul de. waaw mës naa ko am. Euh, kañ la woon. <laughs> yàggul noonu. ah. <laughs> non kenn sama waaj bi de deewoon <laughs> ah. ak ma wax la dafa guddi dama lay expliquer raayit laa lay tegal ah. euh, di su ma di yàggul noonu maanaam bu amee un an ci la war a yem. ok. léegi yow lu la dugaloon si tubaab bi. yéen lan moo leen yéen yéen si tubaab. man dara du du de. Hmm, ban la du tubaab am na yërmande non non. bii non non du boobu tubaab dafa am yërmande. Ah. mais man xam nga. sénégalais yi laa faral daal africain yi. Mhm. ñoom laa faral. yaa ngi ci africain voilà sànq ci biiru wax maa la génnee mais dañuy duggaat foofu. Mhm. mooy ci taayu man ki naay ba tey. Mhm. nga ne ñu gàtt ñu tuuti ñu sew ñaaw ñi duñu am san milieu bi. ñu ñaaw ñi mën nañ dem mais nañu am forme. waaw am na si man kay bu ñaaw nag. <laughs> te gis ko moom mi ngi dem ay France Italie <laughs> moom xam ne moom. dafa rafet de bàyyi ko. <laughs> ah kon xam ki may wax. la billahi sama xarit la. <laughs> sama xarit la sama xarit la de. dama koy tooj rek nag ñaawul sax nag. waaw waaw yow tam ku sikk nga mën kee bu ñaawee sax <laughs> dem.